dañoo seetlu ne élection yu bëri dafay bëri tuuti fitna dafay am fitna lu baree baree bëri yàlla dimbali nañu élection yi ñu ngi jëm ci élection yi deux mois rek moo ci des waaye fitna jógegul waaye nag comme ay jullit leen comme ay wayu gëm lañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñaan mooy ngaan ay jullit moo tax ñu ne bala ñoo dem ci ay pré campagne nañ organiser benn journée wàcc kaamil vraiment ñu ñaan yàlla defal ñu jàmm ci dëkk bi def ko ci Sénégal def ko si mbuur vraiment képp ku nekk fii si domaine ba nga nekk yàlla defal la fa jàmm defal la fa loolu mooy premier objectif bi deuxième objectif bi mooy président de la république Macky Sall biñ ko jëlee ñu investir ko fële sa à Dakar Arena li mu njëkk a xalaat mooy gestu kër diine na leen ñaanal leen ma ba lii nga xam ne nii kat samay naataangoo samay nawle sas nañ ma ko mu oyof si man te moo génn si ak ndam lu wóor ñu nag ñu feelu ko fii si Mbour dajale képp kuy imam képp kuy këru diine ñu jël soxla président Macky Sall boobu ñu tekk ci seeni loxo ne leen nañ ko ñaanal dëkk bi am jàmm dëkk bi am salaam dëkk bi am dal ci campagne bi ak ci pré campagne bi ak ci élection yi mais également yàlla may ko ndam ci élection yi ñu jëm